على إمام bo déggee fukki fan ak ñaar ci weer tri gam gàmm cey suñu soppe ba ak nam ko daan teeroo bàyya nga naan yow sama feebar bi baa xam nga ne sama docteur bi egsi na loo metti metti ding ma abal docteur bi moo di laylatul mawlid gi mooy guddi gi yëngal barek Israayil yëngal kaaba gi ba benn buur keroog fanaanul ci lal wallaahi guddi gii yàllaa ko njëkk màggal kon na ñëpp jóg ñu dem Medina Baye dëkkub ngëneel gi dëkk bi nga xam ne mooy muntaxal duniyaa wàccuwaayu enrifiné yi xaal bi ñu yàlla di tëbb ba ñu cay rawee billaahi raaxol baa ngi ñu posté soodaan cay oxlu soodaan sant leen yàlla am ngeen sofitage yàlla jëfi neen la ko neex rek lay denc ay mbiram abal faydu baa nga ña seen biir Medina bi yàllaa ko ba noppi def ko muy njiit ñan fànkul ay mayam noonu nag borom jamono bi njiitu ña njëkkoon ak ñu mujj ñu jamono jii tey ku ci bëgg mucc da ngay ànd ak borom jamono moo tax man kenn rek la yàlla fal tey ma ñee ko mooy ki dëdd àdduna te topp bàyyi ñas mi xaatimul anbiyaa yi gestuwul ba xëy na mees kooku raw na ca góor ña barxaama ñas géeju mbaamu laan gi mbaalab jàmbaar gi mbaal nga jën ñu mag yi billaahi yaa ñu tere dee ci naasu Cheikh Ibrahima ñas farlul jaamiyu bi yàllaa ko rangal médaille te jox ko mantob diine lislaam te naan kon yaay xalilullaahi góor gii mooy imaamul mursaliina bàyyi ñas mooy abul bachar mooy xutbul aarifiina wallaahi mooy baxjatul alamiina mooy barxaama ibnu abdallah yow mii di dégg te xamoo nga weddi lii ma wax ñëwal ñu dem ca pays ba danaa la wax loo xamul ca góor ña ñoom seeni feeñu waayu démba ya billaahi moo di ñañu faydu yi tey kon jéemal a gëstu ci abal faydu daa xam ne lii démba mooy tey jamonooy wëndaalu rek waaye ruuq buy dem wala buy dikk ci Baay Ñas ngay jaar tey Baay mooy abul arwaax baayu mooy jox mboolem ruuq affectation pays soda ñas kumba yaa di jëm ni kiiraay gépp ko am ngëneel yaa ko xaajal gis sab sang jaamu lu ko may nga raw le doomu olom bu ko lëg lekkee booba yàlla ak coy la jërëjëfee Baay Ñas a war ku ne ndax ku xam li la yàlla jagleel mayu keneen du la yéem Baay ñun fi ñu jëlee fi ñu indi tey ko gën li ñu defal làmmañ lott na koo tudd tey ñoo ngi ñaan ci sa ngërëm yal nañu bokk ci jaamu payi ba ñuy way di la missionnaire ba foofu tabiw di war ci barke Baye Niass yaa rabbi alhamdulilah ala kulli haal alhamdulilah